أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu tollu ci suratul baqara ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya mooy aaya 73 74 75 76 mu nekk ñeenti aaya yunu sunu borom subhaanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir mbir yooyu ba ca njëkk mooy wujubul wafa bil uxuud wal mawathiq sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi waral ci ñun ñuy respecté pacte yi ñuy respecté signature yi ñuy respecté kàddu gi nga xam ne génn na sunu diggante ak moom wala pacte bu ñu signé suñu diggante ak moom wala suñu diggante ak suñuy mbokki doomu aadama wala suñuy mbokki jullit ab jullit lépp lu génn ci gémmiñam mu ne waaw waaw la war a doon saa yoo waxee waaw ab gor su waxee waaw na yëg ne wax ji wax waaw ja mu wax waaw bor la ci moom def ko war a mottali lu dul loolu xam nga la cay tegu ci kàddu gu ñuy teg ci sa kaw te mooy safaan te mooy yow doo waxkatub dëgg ab fenkat nga kon mbokki jullit yi sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi waral ci ñun ñuy matal kóllëre di matal bépp pacte bépp kàddu bépp wax boo xam ne wala lépp loo xam ne waxoon nañ ko suñu diggante ak moom suñu boroom waral na ci ñun loolu ñu war ko respecté loolu ñu war ko dëggal loolu ñu war ko jëf ñaareel bi mooy dana war cib jullit yajibu axdul ahkaami shar'i bi hazmin jullit bi li war ci moom mooy atte sharia yi mu jël ko en main mu jël ko en cœur mu jël ko jël goo xam ne du yem ci loxo yi waaye day dem ba ci xol ba sharia mbokk yi kenn du ko fowee comme li xew tey ci jamono nga dégg ku naan man gëmuma sharia wala xaqiqa moo gën a for sharia wala lan mooy sharia waaye yéen bu leen ñu sonal ab jullit saa yu waxee loolu na yëg ne génn na ci lislaam murtad na nekk na ab yéeféer ndax sharia nit tëralu ko sharia yàllaa ko moom sharia yàllaa ko jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sharia muhammadiya la yonent bi moo ko yoonal moo ne nii la yàlla wax ngeen jaamoo ko lii la yàlla wax ngeen def lii la yàlla wax ngeen bàyyi lii la yàlla wax ngeen lekk lii la yàlla wax ngeen naan nii la yàlla wax ngeen solo yonent bi nag li mu doxal ba bàyyi ko fi dem ay nit bu ñëwee ginnaawam di ko diingat tey soo waxee ñu ne diingat yéen kay yéenay diingat yéen ñi fi bàyyi li muhammad jël jëm jël li keneen indi yéen ñi suufee li muhammad indi woon wallahi yéen yéenay diingatkat yi waaw suñu bëggee xam ñan ñooy diingatkat yi nañu dem xool ñi wuuteeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ne ñooñ ñooy diingatkat yu mag yi ndax ku fi bàyyi lu muhammad indi yow yaay diingatkat bu mag bi fal yaxzari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum adabun alim sunu borom subhanahu wa taala ma ngay wax ci suratul ahzab moytandiku leen wuuteeg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu mbugal leen adduna mbugal leen alaxira tey looloo am ba ñu wuuteeg moom ba tey jullit ñi bi ñu wuuteeg sayduna muhammad ba tey ji nekkuñ ci jàmm te duñ nekk ci jàmm lu danoo dellusiwaat ci keppaaram ci keppaaram dong la ñuy amee jàmm la ñuy amee dal la ñuy amee féex la ñuy yàgg la ñuy yëge xel mu dal mu tranquille suñu digganteeg suñu borom kon mbokk yi tey sunu ñaareelu tomb ci sunu dars mooy yajibu axdul ahkaami shar'i bi hazm li war ci ñun mooy sharia bi ñu jël ko en main ñu màtt ko ak sunuy dëgëj ñu koy wax di ko dund bis bu nekk ñu bañ koo fàtte wala ñu bañ koo fàtte fàttelu wa zikriha wa adami nisyaaniha aw tanaasiha waaw charia ba buñ ko jëlee dañ koy dund di ko jàngale di ko waaraatee di ko waxtaane di ko yedde nit ñi ñu bañ koo fàtte waaye di fàtte fàttelu charia jéem koo fàtte wala nga koy fàtte fàttelu wala ngay jalgati war a yem ci benn jabar ya wala ñaar wala ñett wala ñeent nga dem takk junni jabar suñu waxee nga naan dafa am ñu ko sañ dafa am ñoo xam ne xamu leen lu ñuy dund ñooñu ñeme nañu waaw ñeme nañu kay li ñu ñeme kay nit ñi xam nañ ko mooy ñeme yàlla waaw ñeme yàlla defuñu lu dul ñeme yàlla képp ko ëppal ñeenti jabar da ngaa ñeme yàlla ak koo mën a doon nag fii may wax ak yéen ku seen xel dem rek fi ngeen ne kooku kooku la ndax moom moo jalgati li yàlla wax kon moom la mbokki jullit dinañu delloo si suñu xel ab jullit dafay yem fi ko yàlla yemloo waaw tilka hududullah yàlla nee na lee mooy samay frontière fala taataduha bu leen ko jalgati ni ngeen yëg ne wa man yataadda hududallah képp ku jalgati frontière yàlla faqad zalama nafsa tooñ na boppam lii yëpp alquran la waaye tey lu tax mënuñu ko dund mënuñu ko jàng mooy li mu wax léegi mooy dañ ko fàtte ñenn ci ñun fàttewuñ ko sax waaye dañ koy jéem a fàtte fàttelu ndax seeni bànneexi bakkan ñetteel bi ñuy jàng tey mooy laa tatimu taqwa li abd illa ida axada ahkaamu shar'i bi hazmin wa azmin nañu yëg ne dund sharia dund diine ragal yàlla du ma mën a nekk ci jaam jaam du mën a am ragal yàlla lu dul bu téyee atte yàlla yi sharia bi bu ko téyee ci dogu ak pas-pas li tax tey mënuñu am ragal yàlla mooy sharia dañ koo téyewul ci dogu ak pas-pas dañ ko téye nii rek ci sunuy cati baaraam te yonent bi da noon addu alayha bin nawajis màtte leen ko ci seeni dëgëj loo war a matt ci sa dëgëñ na nga téye ko ci say cati baaraam xam nga ne loolu du benn kon ragal yàlla du mën a am duñu mën a ragal yàlla duñ ko mën a jaamu duñ ko mën a topp duñ ko mën a bëgg lu dul sharia bi dañ koo jël ci sunuy xol ak ci sunuy xel matt ko ci sunuy dëgëñ sharia du lu ndaw kenn waru ko fowee kenn waru ko jàpp ci say cati baaraam sharia ci dugal ci xol lañ koy dugal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy joxoñ sharia fu mu war a nekk dafa ne at taqwa haahuna mu daal di jël baaraamam teg ko ci dënn bi ci wàllu càmmoñ bi ci suufu ween bi foofu la xol bi nekk mu ne at taqwa haahuna ragal yàlla fii lay nekk ñeenteel mooy araam na ci ñun ñuy daganal li yàlla araamaloon te ña koy def nañu yëg ne képp kuy araamal lu yàlla daganaloon wala ngay daganal lu yàlla araamal na nga yëg ne mbugal mu rëy mooy ñëw ci sa kaw loolu sikk munta nekk ndax gis ngeen banu Israil ba yàlla araamalee ci ñoom ñu nappi samedi ñu daganal ko musiba moo wàcc seen kaw kon mbokki jullit yi suñu bañee musiba dal ñu àdduna musiba dal ñu alaxira nanu góor góorlu ñu bañ a araamal li yàlla daganal wala ñuy daganal li yàlla araamal gis ngeen tey ci dëkk bi sol gu bon jigéen ñi ni ñuy soloo xam ngeen ni dafa araam mais daganal nañ ko kenn ci ñun du gis njabootam ci jabaram ci ay doomam sol lu araam ba mu yëg ko ci xolam ca la ñuy def ci bopp yi ca la ñuy diw ci gémmiñ yi ca la ñuy diw ci wee yi la ñuy diw ci bët yi ba ci suuf lépp a araam ay kenn ci ñun du wax ndax daganal nañ ko fi mu nekk nii góor jigéen xam ngeen ne dafa bon dafa ñaaw dafa araam waaye xoolal nañ ko daganale ci mim réew ci yooyu laa mën a yem yeneen yi yéen a ma ko gën a xam kenn ku nekk damay joxoñ rek na ko sa xol yeggali ak sa xel ci tey yoo xam ne yàlla daka araamal ñun ñu daganal ko organiser ko defar ko capp-cappal ko maquiller ko ba mu rafet daal di koy solal mbubu ne ko ñëwal toog araamoo dara ndax da ngaa rafet waaw da ngay dégg ñu ne jigéen lu mu def rafet na lu mu def ba rafet rek baax na ah xanaa dañoo waroon wax même bu daganee sax waaye jigéen lépp lu mu def rek su rafetee araamul dagan na ah dëgg-dëgg dañoo waroon wax xanaa boog bu fekkente ne loolu mu def dagan na waaye lu mu def rek bu fekkee taaram dana ci génn rek loolu dagan na loolu de du sharia loolu de du diine yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam diine yonent yàlla muhammad day mooy li yàlla wax moom moo dagan li yonent bi indi moo dagan lépp lu yàllaa ko bi yonent tere loolu araam na mbokk jullit yi lii ci gàttal mooy ñeenti aaya yoo xam ne moo war a nekk tey sunub dars ñu ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu sunu làmmiñ bi yàlla bu mu tarxiis di génne téere yàlla bi wala muy wax lu wuteeg li yàlla wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فقلنا, فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ak ab yonentam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko fàttali moom yàlla tabaraka wa taala mu ngi fàttali sayduna muhammad melokaanu yahuud yi yahuud yi nga xam ne la seeni maam nekkoon ca lañ nekk ba tey ca ay xew-xew yu paase woon ca jamono borom bi tabaraka wa taala di fàttali sayduna muhammad ci ay mbir yu doxoon diggante yonent yàlla yi yàlla yónni woon ak yahud yi ak yahud yi mu ne ko wa is fàttalikul axas naa ba ma jàppee misaaqahum seen dig al misaaq al ahad al muakkad bil yamin mooy dig pacte boo xam ne dañ koo dëgëral mu ànd ak ak waat ak ngiñ mooy lii dinaa ko def ba pare wala def leen sàngam ba pare ñu ne dinañ ko def waaye ñu giñ ci yàlla ne ñoom danañ ko def loolu mooy almisaq waaw mbind moo xam ne dafa ànd ak signature ànd ak kase loolu moom kenn mënu koo weddi mbind muñ mbind ci kayit mu ànd ak ko bind signé na ko kase ko loolu la muy tekki mooy kii lii muy wax ni lu dëgg ci moom la lii mu bind nii lu mu soxla la sunu borom subhanahu wa taala di fàttali yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam digga doxoon diggante banu israil ak seen borom mu ndax mën a is fàttalikul axas naa ba ma jàppee miisaaqahum seen dig mu ne war a faanaa ma dijjiti fawqahum seen kaw ak tuura doj wa yàlla wàcce leen tawraat ne leen jëfe leen ko ñoom yahuud yi ñu lànk daa di nuur ca seenu mbon lànk ne duñu jëfe tawraat duñ ko jàng duñ ko dund comme nañ comme ñun tey ni ñu dëddoo alquran duñ ko jàng duñ ko jàngale duñ ko dund fu ñuy gis sax ñu koy jàng ñu leen di jéem a xeex ndongo yi daara yi sëriñ si rek ngay dégg Sénégal ndongo yi daara yi sëriñ si rek ngay dégg waa di xeex diine comme na ko yahudi doon xeexee yàlla wàcc ci ñoom tawraat ne leen jël leen ko ngeen dund ko ñu daal di lànk nuur ca seeni caaxaan jaar ca mboy mboy ga lànk sunu borom subhanahu wa taala daal di dijjati doj wa montagne ba acca yàlla ne leen xuzu jël leen acca fal force maa aataynaakum la ma leen indil bi quwatin ci kàttan bi jiddin wa xazmin wa azmin jël leen téere bi walla léegi ma wàcce doj wi seen kaw ngeen dee jël leen ko te su ngeen koy jël na ànd ak dogu na ànd ak cawarte na ànd ak pas-pas waaw du ngeen ko jël rek jëlu ku ko jàpp ci cati baaraam jëlu ku dee ngeen dajale jàngu ko ku jóge màkk ngeen daja jàngu ko waaw ku tiit ñu war ko dàq fa muy liggéeyee mu dajale ay nit jàngulu téere bi ku ñu bëgg a foll ci ndonga ndomba tànkam mu tiit daw jàngulu téere bi ku tabax kër balaa ngay taxu jàngalu téere bi déedéet téere bi du pour loolu li tunzira man kaana hayyan nañ ci waar waa ji balaa muy dee Sénégal ngay gis nit dee ñu koy jàngal alxuraan bàyyi ba mu dee nekkoon ci ay caaxaan tëggkatu musique fecckat ab mbër ab kankuran bàyyi ba dee ñu jël alxuraan di ko jàngal kooku dafa xamoon alxuraan kooku xam ngeen ne alxuraan du ko jëriñ da ngeen di sonal seen bopp mu ngi mel ne rek si ndax bu ñuy jàngal alxuraan masalu lazina hummilu tawraat summa lam yaxmiluha ka masalil ximaar yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo wàccee woon ci ñoom tawraat jëfewuñ ko ñu ngi mel ne ay mbaam yu ñu sëfoon ay téere téere bii di alquran képp ku ko dummooyu képp ku ko woon ginnaaw borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ngi mel ne ab yahuut ndax ñoom la ñu wàcce woon ci ñoom tawraat yàlla ne leen jëfe leen ko ñu lànk yàlla déjjati aw doj tiimale leen ko nekk la leen jël leen ko fal force wala ma këpp ko ci seen kaw ngeen dee te bu leen ko jël jëlu rek teg di ko teg ci seeni armoire ak seeni oto waaw di ko takk déedéet ak di ko jàmb di naan wazkuru ma fiihi fàttaliku leen li nekk ci biir téere bi jëfe leen ko dund leen ko wazkuru ma fiihi dund leen li nekk ci téere bi waaw uzkuru maa tadammanahu lkitaab alladi huwa tawraat waaw jàng leen dund leen li nekk ci téere bi te mooy tawraat jàng leen ko mokkal xam mën a dund sharia yi waaye mën a jëfe atte yi waaye mën koo jëfe ci seen dund lii mooy wazkuru ma fiihi laallakum tattaquun jëfe leen ko ndax ngeen ragal yàlla gis nga moo tax ñàkk dund sharia day tax ñàkk a ragal yàlla nit ñi mënuñu am ak ragal yàlla te xamuñu sharia mënul nekk nit mënul ragal yàlla te xamul sharia mënoo ragal yàlla te xamoo ku yàlla te soo réeree sharia réere yàlla waaw loolu mooy wax ji moo tax yàlla ne leen jël leen téere bi ngeen xool la téere bi ëmb ngeen dund ko hifzan li sharaaihi ngeen wattu sharia bi ci nekk wa ahkaamihi ak atte yi ngeen jàng ko xam ko waaye wa amalam bihi su jëfe jotee ngeen jëfe ko wazkuru waadallahi taala fiihi wa waidihi ngeen fàttaliku ci li yàlla dige ci ay xéewal wala waaye ngeen fàttaliku li yàlla dige ci ay mbugal yi ci nekk lii bu ngeen ko defee di ngeen am ragal yàlla kon mbokki jullit yi sunu borom subhanahu wa taala ne leen jël leen téere bi waskuru ma fiihi ngeen dundul nekk ci téere bi laallakum tattaquun ndax ngeen mën a am ak ragal yàlla ak ragal yàlla la ñuy sàkku ci ñëpp moom la yàlla bëgg ci jaamam yi woor koor gi ñuy woor aaya ba ba muy jeex yàlla dana laallakum tattaquun pour ngeen ragal ma tabaski laallakum tattaquun lan yanaal allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaaluha taqwa minkum ragal yàlla moo tax yàlla sant ñu tabaski aj màkka li tax yàlla ragal yàlla la ci bëgg fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa ut leen yóbbal bu ngeen di dem yóbbal gi gën rëy ci aji màkka mooy ragal yàlla waaye xool leen tey ndax aj màkka ragal yàlla tax mu jóg waaw damay dem màkka rek ngir tudd arjaratu ndax nekk àllaa ji waaw dem ñëwaat làng say tamaak say tabala ajaa ana yonent bi ndongoro ndong ajaa ana yonent bi loolu la ñuy ajee Sénégal tuub leen bàyyi leen caaxaan yàlla fowul foluwul waaw yàlla fowul foluwul afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun di ngeen yaakaar ne foo moo tax ma bindi leen ba ngeen sax ci àdduna defe ne du ngeen delsi fa taala allahu malikul xaq wallahi kawe na buurub dëgg bi da ngeen xam ne yàlla fowul foluwul waaw sunu borom subhanahu wa taala nee na wa ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma laibin asamaan ak suuf foo taxul mu jóg yàlla bind ko pour fo asamaan ak suuf ak li nekk diggante asamaan ak suuf yàlla nee na foo taxul ma bind ko foo taxul ma defar ko foo taxul ma sàkk ko kon nan dellu si xel yi dëpp fii ñu jaar du fii foog nu dëpp jaar ci yoonu yàlla jaa xeeñtu njubal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu bëggee am taraanga adduna ak taraanga alaxira mbokki jullit yi suñu borom subhanahu wa taala nee na summa topp tawallaytum wane ngeen ginnaaw min baadi dalika ginnaaw lii ma leen sant ne leen jël leen téere bi ngeen dund li ci nekk bu leen fàtte contrat yi ngeen signante woon ak man waaw waaye lii ma leen wax yëpp fële ngeen ko teg sànni ko ci seen ginnaaw summa topp tawallaytum dëddu ngeen wane ginnaaw rajaatum dellu ngeen ginnaaw ca lañ leen santoon na ngeen taxaw ci jëfe ko te mooy téere boobu tudd tawraat ngeen sànni ko fële topp seeni xumbal ak seeni simb ak seeni kankurang ak seeni làmb ak seeni nawetaan ngeen sànni ko fële ca xaj waaw naa ne lii dañuy tardeel lii mënuñu ko dund lii dafa metti su mata wallaytum wane ngeen ginnaaw min baadi zalika ginnaaw lii yàlla wax ak yéen borom bi nee na fa lawla fadlullahi bu dul woon di ay xéewali yàlla ay ngëneelam aleykum ci yéen wa rahmatu ak yërmandeem la kuntum da ngeen nekk minal xaasirina ca way perte ya borom bi nee na bu londu samay xéewal sama ñàkka gaaw a mbugal ay nit min fadlillahi taala alayhim annahu lam yuaajilhum bil uquba bokk na ci xéewal yi leen yàlla defal mooy bañ leen a gaaw a mbugal mooyu ñu rek yàlla mbugal leen yàlla may na leen batma may leen temps may leen diir bu ñenn ci ñoom ma seen xel mën a dellu see ñu tuub xam ne lii kat du wéy caaxaan yi ñu nekk du continuer waaw mbokk yi caaxaan ku ci nekk rek boo ci dee alko fàttaliku leen mbokk yi ana Bob Marley ana Michael Jackson ana Jimmy Cliff ana ñooñu tey suuf féete na leen kaw ana ñoom Ndongolo ana ñoom Njaga Mbay ana ana ñi jeexal seen dund ci ay caaxaan ay waayeeg fecc ana ñoom mbasu mbay per bu xar ana ñooñu ana ñooñu tey ana ñeneen ak ñeneen ñi ngeen xam ne yéena ma leen gën a xam ana footballeur yu ngand ya ana boxeur ya ana caaxaankat ya ana fecckat ya ana ana ñoo ñëpp tey genn wàll gi suuf féete na leen tey kaw waaw yàlla ne leen leen rapp poñe tëral leen te ko yàlla tëral dootoo jóg mbokk jullit yi ñun dëpp delloo suñu xel xam ne caaxaan du wéy noos nuus xam ngeen la ca tegu kuy noos ba yàlla ne la nuus ba ca tegu xam ngeen ko mbokk jullit yi suñu borom nee na bu doon du xéewal gu yàlla wàcce ci ñoom te mooy yéexe mbugal gi bañ leen koo gaaw a fay ba ñu dellu siwaat tuub dellu ci moom kon musiba dal leen kon danañ bokk ci ñi perte fa lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la kuntum min alxaasirin su fekkonte ne lu yàlla yàlla moo leen moo am yërmande am ñeewant ci ñoom am patience xam ne am na ci ñenn ñoo xam ne mën nañoo tuub dellu siwaat yàlla mu ne kon heure bi kenn waxatu ko kon bokk nañ ca ña perte te sax xam ngeen walaqad alimtum xam ngeen alladina gaañ a nga xam ne itadaw minkum walaqad alimtum alladina atadaw minkum xam ngeen gaaya bokk ci yéen ñoo xam ne dañoo jalgati woon waaw walaqad alimtum xam ngeen alladina gaa ñi nga xam ne ci yéen lañ bokk ci seeni famille ci seeni biir kër waaye ñooñu lan moo leen dal te daw dañoo doon jalgati xoolal tey Sénégal bu ndemee ba am ay yëre jalgati dallu jalgati mbokk jalgati ah la ilaha illallah jalgati yow loo sol jalgati fecc jalgati yëre jalgati dallu jalgati mbax ne dall jalgati wala musóoru jalgati waa sa waay nag lii nga sol nag damay jalgati yàlla tere ku jalgati ñun ñu waxuma la ñu yem ci jalgati waaye utal ko sax ay ay ay ay col ay mbubba ki dàll ki fecc ki yére waaw te yàlla nee na ña jalgati woon xam ngeen la leen dal wala qad alimtum xam ngeen amuleen benn sikki sàkk yéen ñii xam ngeen allazina gaañ a nga xam ne itadaw ñoo jalgati woon minkum ci yéen te bokk ci yéen ñii fi sabt ca samedi ga waaw tere woon leen génn samedi ñu génn waaw dañ leen tere woon nappi samedi ñu ne leen samedi moom bu leen laal géej gi bu leen laal dex gi gaal yi bu leen ko laal waaw ñu daal di bàyyi ba vendredi ñu préparé samedi jot ñu dugg gaal yi jël seeni mbaal jën yi génn ñu daal di jël mbaal yi kar jën yi ba mbaal yi fees ñu daal di koy bàyyi ci biir géej gi samp ko takk ba mu dëgër ñu dem ba dimanche ñu ñëw di ko jël si waaw ñu ne leen lii nag ñu ne bu yàlla waxee ñu ne ko nappi wuñu samedi dimanche lañ indi jën yi fekk samedi lañ dem koj jën yi mbaal leen ba jën yi mënatu ñëw di delluwaat ci biir géej gi allahu akbar xam nga loolu ay pexe la nañ def lii ndax bu yàlla waxee lii ñu ne ko lii a tax ñu def lii tey loolu am Sénégal jël ay sabar boole kook diine ji di tëgg di fecc soo waxee ñu naan fecc mu ànd ak laa ilaha illallah yàlla dara nekku ci bu doon loolu la yàlla fecculoo Seydina Muhammad bu doon loolu la yàlla fecculoo Abu Bakr yàlla fecculoo Umar ak Usmaan ak Ali Bilal Hamza kon yàlla fecculoo leen waaw ay fecc amul ci islaam di fecc mel ne ay mboto yu ndaw li lay gën a xam ne réew mi am na ñoo xam ne duñ dem nga gis ponkal mu taxaw ci diggub làng ay jigéen di ko tàcc muy fecc di tëb di wàññeeku mel ne subhanallah la hawla wala quwwata illa billah yàlla yàlla boo ñu jàppee li ñenn ñu réer ñi di def ci sunu biir sunu borom ne na xam ngeen ña jalgati woon samedi ga lu leen dal ñamane woon leen bàyyi leen samedi waaw samedi jot ñu ne ñoom dañuy def lu leen neex ca samedi ga waaw yàlla day bañ ko génn samedi de te gaa yi ñoom lànk nañ nee nañ samedi foog ñu génn wala qad alimtum xam ngeen allazina gaa ñi nga xam ne itadaw dañoo jalgati woon minkum ci yéen fi sabti ca samedi ga borom bi nee na bañ demee ba jëli jën ya dimanche fa qul na lahum ma fekk leen fa ca géej ga ma ne leen kuunu nekk leen qiradatan ay golo xaasi ina yi torox ñoom ñëpp ma def leen ay golo waaw ñu daal di torox yàlla wëlbati leen daal leen massa ay nit lañu woon yàlla def leen ay golo mu ngoog moo tax gis nga daanaka mën nga ne nit ñi genn wàll gi léegi yàlla da leen a masaa yàlla masaawul seeni yaram pour mu soppeeku déedéet yàlla seeni jikko ak seeni xel la masaa ndax nit koo xam ne da ngaa futteeku di def yaramu neen ngolo ndax sol na tubéy mbokk yi bu ngeen seetee lii ma wax ñi aaya ji dëppale leen ko ak xew-xew bi tey am ñiy cris karas seen tubéy di génn seen taat yi seen ginnaaw ngeen jéggal ma ci baat bi ndax golo moom sol na tubéy golo sax gis nga yaram bi yëpp dafa muur waaye ba mu ñëwee ba ca ginnaaw gi ci taat bi foofu dafa kuppatiku daanaka ñiy cris karas tey da ngay xam ne yàlla da leen a soppi nii lañ mel ay golo lañ dëppale leen aaya bi ma wax ak ak xew-xew yi yi ñuy dund tey ci dëkk bi jigéen ñi di ko check down waaw nit bu demee bay génne awraam ci biti ñu ne lan la mu ne lii modd la tudde ko check down te yàlla nee na ñama ala goloon def leen ay golo golo noonu la mel kon soppi gi yàlla soppi tey nit yi àddina yi du question ne yàlla dafa jël leen def leen ay golo wala ay mbaam xuux waaye yàlla da leen jël jox leen ay jikko mbaam xuux ak ay jikko golo ak ay jikko rabu àll summa radadnaahu asfala saafiliin ulaayika kal an'aam bal hum adal ay aaya yu leer la buñ ko buñ ko settantalee buñ ko xeloo suñu borom nee na fa qul na lahum ma ni leen kuunu nekk leen qiradatan ay golo xaasi'iina yu torox fa ja'alnaaha def naa ko nakaalan muy mbugal li ma bayna yadayha ña ko fekke woon wa ma xalfaha ak ña nekk ci ginnaaw di ñëw te ñëwaguñu ña ko fekke woon nga xam ne deewuñu woon gis nañu mbugal ma waaye ña ko doon déggit mooy ñun ñii yàlla def na mbugal mi pour mu nekk ak waar pour ñun fa jaalnaaha nakaala li ma bayna yadayha wa ma xalfaha yàlla nee na def naa mbugal ma ca ña ko fekke woon ñu teewe ko ak ña ñëwul woon seen ginnaaw di ko dégg wala ña ko fekkewul woon yàlla nee na def naa mbugal ma mu nekk ak waar pour ñoom wa mawizatan mu nekk waar lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla ku ragal yàlla bu déggee ku jalgati woon ku ñàkkoon yem fa ko yàlla yemloo yàlla tabaraka wa taala mbugal ko kon yow mi ragal yàlla boo déggee lii war ngaa xam ne mankat bu ma delloo ci lii yàlla mbugal ma borom bi tabaraka wa taala mu ne ci wàccuwaay wii nga xam ne moom la leen wax mu ne fa jaalnaaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawizatan lil muttaqin man yàlla def naa ko waaw mbugal mi këpp seen kaw yàlla nee na ma masaa leen ma dëpp leen def leen jëli leen ci nit def leen ay rabu àll def leen rabu àll boobu tudd golo waaw noonu la ñoom ñi nga xam ne ñoo jalgati yoon ca samedi ga noonu la leen yàlla tabaraka wa taala def waaye mu jëntalu aaya bi war nañ ci fàttaliku bu baax borom bi nee na wa mawizatan lil muttaqin waaw def naa mbugal ma bi nga xam ne moo nekkoon ci seen kanam ngeen koy dégg ñooñu nga xam ne ñoo génni woon ca samedi ga rëbb nappi borom bi nee na ma masaa leen ay golo waaye wa jaalahum iza wa ibra lil mu'tabirin borom bi nee na def naa leen ñuy ak waar ma def leen ñu war a nekk ak kiimtaan goo xam ne ku leen xool rek war cee waaru waaw hum ahlul basair waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo war a waaru ñoom ñooy ragal yàlla mooy ñi am gis-gis ñoo ñu am gis-gis ñooy ñi am ngëm yàlla ñooy ñu am ragal yàlla lu tax ndax ñoom ñooy borom xel yi ku xelu nag wal aqilu man itabara bi xayrihi ki am xel mooy kuy waaru ca moroomam sama moroom de ba mu defee lii lii ko dal te loolu musiba la kon man loolu duma ko def balaa musiba di këpp sama kaw sama mbokk ma de ba mu jaaree yoon wi la ko fi dal kon man yoon wi duma fi jaar ndax la daloon sama mbokk mi kon def may dal waaw wala aaxilu man itabara bi xayrihi ki am xel mooy ku gis moroomam waaru ci moom mbokki jullit yi kon lii mooy sunu darsu tey noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu